waaw ni ma ko gisee moom métti na trop parce que fii ma taxaw maa ko moomoon lii lépp sama alal la mais loolu la yàlla dogal ko dama yeew ñëw taal oto ñëw taxaw toog toog si biti suñ alal ji lakk mënuñu si dara ñu toog muy lakk ba bés set waaw te mënuñu si dara li ma fi dugal si koppar na trop trop trop parce que yàgg naa fi am naa fi 19 ans lune def naa ko fi def na fi alal bu ne même xaalis ak lépp lak na fi sama xaalis bëri lak na fi ak bagage marchandise no bëri na parce que amna ben benn takku un million bo xamne dama ko dajji genn ci 130000 lépp ci la lakale ak yenen xaalis yi quoi waaw li lak mom bëri na. mën na fi voyage da marché bi lu fi nek lo kenn mën la ko wax so dugé ci marché bi da ngay tit da ngay tit place yoo ay 2 mètres 2 mètres 2 mètres mbedd mbedd bi matul matul 1 mètre 50 mbedd yi 1 mètre 1 mètre 1 mètre la affaire bi dafa métti seigne bi. fii ay milliards ñoo fi yàqu sëñ bi ay milliards amoon ñoo xam am na si ñoo xam ne seen xaalis liquide moo yàqu si biir place yi ah nan nan nan ñu waa kaw ñoo war a am fula ñun ñoo war a am fula te sëñ bi sëñ marché bi bëgguñ mu defal ñu ko sëñ marché bëgguñ mu defal ñu ko moo ñu bëgg ñun moo ñu bëgg tey ji marché bi mu génn ñu mbalit mii mbalit mi la bëgg mu génn ñu ko ñu defal suñu bopp suñu leen ko bàyyee ñoom amul moyen bu te ay jeunes yoo xam ne avancement leen bëggoon ñu yoo xam ne dañu taqale lépp xaalisu banque ñu si bëri fu ne xaalis banque lay liggéey si marché bi fu ne li fa toog si marché bi kenn xamuñu toll. xanaa métti rek ñuy jaboot nag di xëy di liggéey si di wut lu njóobu suñu njaboot yàlla nag moo dogal lii ab julli nag day nangu it dogal ba yàlla waaye bu ñu mënee dimbale te yàlla tax xam ne ñun ñëpp jaboot lañ ñu dimbale ñu te yàlla tax ndimbalal borom kër nag war te yàgg ndax ñii xale yu ndaw lañ dañoo yor seen ak njaboot di def dépasse ñun dem ay jigéen lañ waaye gannaaw yàlla ak yonent ba marché bi lañ yaakaar suñuy soxla si lañ koy faj jaboot nag liggéey rek lañ xam daan doole faj suñuy soxla waaye lii ne su fekkee ne yàlla nattoo nañu ko ñu muñ ko te yàlla tax buñ ci gouvernement mën ñee dimbale tam gaaw dana baax lool dimbal nag lañ ciy ñaan. Marième Faye Sall autorité yëpp lañ boole waaye Marième Sall Sall mi nga xam ne moom moo jigéen la comme ñun xam na suñu àq xam na suñu gëdd xam na suñu yelleef te nag dañuy daw di daan suñu doole comme moom dañuy liggéey liggéey. amul jaakatu këriñ amul jaakatu géej amul jaakatu keccax kenn ku nekk li ngay liggéey moo la faje sa soxla kon nag li ñuy liggéey mu diñu faje suñu soxla moom mi jigéen kum ñun te xam ne jigéen lañ dañuy liggéey moo ñu wala dimbale te tax di meeru dëkk bi nga xam recensé gum dañ ko 450 yi tegal na mbaaru jën lañ fa recensé gum 4 43 places recensé nañ ko fa à peu près boko bolé presque 500 places té recensement bi parégul mais 500 places mom mom wër nañu ndax bir mal bi bil mal, bi rek la fa nekkoon mat na 500 places par rapport ak rebord yi kon nag la fa lakk moom buñ ñu dee wax ay ay canting la table amatu fa woon biir bi mbaaru jën bi moo am ay table mooy 43 table yi mooy 43 table yi mais li ci des lépp ay canting la canting yooyu man presque mat na 800.